benn décret ci le premier septembre deux mille vingt deux moom it jël école bi di école Fass bokk ci école yi gën a yàgg ci dëkk bi ci réew mi sax laa war war a wax tudde ko Badara Mamaya Sène dogal yooyu nag li ko waral mooy ñun ñi nga xam ne nga doon ay dëkkandoom dëkk Fass Dango Dar Salaam bokk moom Tëngéej ñun ñëpp dañoo jàppoon ni doon na rafet gannaaw li nga xam ne lépp liggéeyal na ko réewam. liggéey ko euh, euh, euh, Afrique liggéeyal ko gox bii mu dëkk dafay rafet bu génnee àdduna ñu bàyyi ko fi loo xam ne du fay ba mukk lii moo war loon ñu woote bi ñu woote pour nag léegi jëmbal nag loolu yëpp ci bés bi nga xam ne bii mooy le 23 décembre di tombeek samedi bii di ñëw ñaar fan ak ñett ci weeru décembre ñu waajal nag benn programme boo xam ne bii dafay lalu ci bëccëg bi yëpp bu nu xëyee bu ci yàlla àndee dinañ wàcce kaamil Euh, ci njiital sunu imaam ratib El Hadj Khalifa Diop ak ci imaam yi fi nekk yëpp ak notable yi fi nekk yëpp bu ñu jàng alxuraan ba noppi ñooñu nga xam ne tamit muy imaam yi ak notable yi dafa amoon ak ñoom nekkin bu rafet ah dinañ def ay témoignage ci moom ci ngoon gi nag mooy cérémonie officielle bi ci la ñuy euh, ci la ñuy séentu euh, kilifa kilifa politique yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi ak ñi nga xam ne ñi la ñoo ŋànk mbirum njàng mi ci département bi yëpp ak ñu ngànk sport bi ci Sénégal gi yëpp bu ko defee bu waxtaan waxtaanee ba noppi ku ci nekk wax say témoignage ci moom.